3S Pro. cant ak ngërëm ñeen bu baax a baax ñi topp ci seen lamb TV di contentement bu baax a baax yaakaar naa ne tey vendredi bi gis na ni mu bañ xëyee gars yi dañu caaroy gis nañ déclaration bi nga xam te ni kaawur rek daal dina koy def waaye nag ngoon gi maa ngi ne fii Guédiawaye fas yéene waxtaan ak ki nga xam ne mooy Lamine koo xam nag mooy coach école de lutte Balla Gaye numéro 1 ñu fas yéene waxtaan ak moom lépp lu soxal làmb waaye biir réew di Sénégal Lamine man nuyu la bàyyi nga nuyu internet mu daal war ñoo tojal lu bari nag lu tax làmb ja amoon na ay cas yu baree bari bari te cas yooyu moom loxo mu ci biir foog mu toppal ñu ko Lamine nuyu naa la bàyyi nga la ngay nuyu internet yi maa ngi lay fay Ndeye Mbacke suma chéri sama xarit di nuyu internet bi yëpp di nuyu Sénégal monde entier rawatina géejawaay gii nga ñu fekk ak lu làmb yépp maa ngi leen di suyaar bu baax a baax. yàlla la sama pour comme. ci bëggante bi ñu bëggante. danaa déranger yow. non yow baali ngeen dangaa mën a am ku ma gën nañ wax ci lii ba pare yow loolu ay waxi téléphone la ma ak yow. yow ñaar nga yor. man damay am ñeenti jabar. ma ne bokkuma ci wujjee moom. yaa xam soo wujjewul yow fi leen soo mu amoon jël di dangay ngay nii rek ah wax ci leneen waaye balaa ay gars yi di ñu xamal cat baaxul nañu waxtaan. <laughs> Lamine ginnaaw ba ma la nuyoo ngeen bëre bi nga xamante nii mën naa ne combat bi gën a am importance ci carrière Sa Thiès la bokk waaye bi gën am importance ci famille Sakho nga nekk coach am doon ko entraîner pression bi lu la doon def. waa dara mooy li wax rek. tàmbali nañ ko si bisimilahi rahmaani rahim génn seek si alhamdulilahi rabbil alamin tey jii combat Sa Thiès rek Reug tey jii du woon làmb Sa Thiès kese tey mën naa ne woon làmb géejawaay la woon ndax géejawaay dañoo soxla woon combat bi torop rawatina école de lutte Balla mu doon première sortie Sa Thiès si école de lutte ndax àdduna ñëpp xam nañu Sa Thiès jóge na écurie fa mu nekkoon ñëw école de lutte Balla Gaye mu ñëw nag ñu waajal ko niñ ko war a waajalee waajal ko sérieusement mu tegoo ci ay coono yu méttee mettee méttee ba sunu borom def li gën mooy may ñu ndam keroog ndam bu sedd guy leer naññ ba àdduna yépp xam ko. leer naññ na ah arbitre ba dafa juum te ñëpp xam nañ nit ne day juum mais nit ñi gëmbawuñu Sa Thiès avant CNG mi nga xam ne ni ñëpp xam nañ ñu yoon lañ fi nekkee dañuy def seen liggéey avant ñuy déclarer ni c'est Sa Thiès gagné na àdduna ñëpp xam nañ ni Sa moo gagné. muy yow mii ba si yow mii toog sax yow sax xam nga ni Reug Reug def na sa quatre appuis. Mhm. ay tax dañuy def brièvement la dugg ci biir géew jour làmb ji jour ji ñu gis Sa Thiès ñëw lu yàgg ay cumukaayam soog a ñëw lan moo waral loolu avant. non mooy li ma la wax xam nga tey ji làmb ñun dañoo tollu benn moment boo xam xam nga soo ñëwee bëgg a dugal say bagage policiers yi ak bunt bi dañ lay sonal doo mën a dugal lépp mhm. man nag yàlla def ak sama xarañte ak sama yeewute ak lépp ma jël décision boo xam ne man maa ko jëlal décision sama bopp muy jël yenn bagage yoo xam ne yi ab importance ak yi mënut a ñàkk yëpp dugal ko sama oto sama oto dafa ñëw stade ba mu yebul benn nit man kese maa nekk ci biir oto bi damaa yeb Ford Escape carré la 4x4 yeb ginnaaw gi yeb seesu kanam ginnaaw yi yeb kanam gi lépp dama ko yeb ay bagage saa Thiès otoom quelques bagages rek lañ fa def moom la duggal si stade bi fekk man jiitu naa bu yàgg ba dugal sama oto ba dañ ko dugalee ndax bunt bi soo ñëwee policier dañ lay kii ngay say bagage di daanu fii bagage yi di perturbé wu di def yooyu te làmb ji jëlee woon naa ko noo xam ne ni bëgguma ci woon zéro faute laa ci bëggoon bëgguma ci woon bàyyi benn détail moo tax ma ñu jël dugal Sa Thiès dugal ay munta ñàkk ci digg géew ba mu dem ba teg ci mikaayam ba toog ma jiital 15 mbër yi ma àndal yëpp ñëw bunt ba arrièreaat sama dem jëli sama oto si parking bi arrière ko ba ci buntu bi ñu jël bagage yëpp wàcce ko dugal ko te noonu lañ ko defee mu doon liggéey bu set wax dëgg yàlla di sant école de lutte Balla Gaye yëpp rawatina mbëri ndax taxawaay bi wax dëgg yàlla rafetoon na trop quoi ndax même bu dul man sax ñoom rek première sortie Sa bi da na ñoroon. ñu mm-hmm. réussir ko. waaw ñu réussir ko di ñaan yàlla am na yeneen ak yeneen yu des yoo xam ne ni Sa Thiès xale la te li nekk ci kanamam fi mu ne nii dugg na foo xam ne nii foofoo gën a metti mais man awma lu may tiit ci moom ndax mbër moom su ñemee entraînement loo ko teg mu tegoo ko. loo ko wax mu def ko rek kooku amul benn tiitaange bu may am ci moom. Mm-hmm. ngeen ñëw boobu premier point bi la ma seetlu ko yaakaar naa ñëpp seetlu ko Reug Reug di tuus Sa ànd yow ak Sa Thiès xaw ma kan gi génne saat bi la ma waroon ngeen gën fan ngeen dem. non dañ doon génn doon doxantu ji rek am lu doon jëli ji ndax bi Reug Reug di tuus après man maa jékki-jékki rek ñu am lu ñu waxtaanee ma ne ko nañ doxantu ji. doxantu waa ñu génn doxantu ji taal suñu oto. ma dugg arrière taal su ma dugg sama oto te taal arrière ma sax Sadio dafa dox ba parking ba fi ñuy gaare oto yi foofu lañ dox ba pare ma taal man moom Fils de Balla la ñoo ànd mu toog ci ginnaaw Fils de Balla toog ci kanam ñu génn stade bi rek doon doxantu ñu rek am ñu doon jëli ji indiwaat ko. man loolu ba ma ko déggee say kàddu dama ne kii est-ce que ça va yow comme bu doy noonu amoo benn pression di génn dem doxantu ji lan la. Sénégal ñoo amoon pression ci làmb jooju mais man mi xam Sa Thiès man awma pression ci moom parce que xam naa ay qualité am xam naa mënam xam naa lu taxaw si kanamam ak lu mënti doon aw ma ci mais tegtal la woon rek ñu génnoon rek xam nga rek taaloon sunu Viviane nii rek dama taal benn son Viviane si oto bi rek doon wër biir géejawaay yooyu tuul yooyu dem naa presque sax non waa waa làmb la rek xam nga léegi dégg gis nga bërki dem moo njaay rek am na benn mbër buy bëre bi muy bëree bi mu demee ba des kay mbër may tuus nga gis ko moom mu génn stade bi waaw toppandoo te ñun xam nga rek mooy loolu xam nga làmb loolu la waaw di def loo xam ne après da ngay gis maa la ko di nga gis yeneen mbër ak yoo xam ne mm-hmm. dinañ koy def mm-hmm. Mm-hmm. seen cumukaay bëri woon coow lool jàppal bàyyil coow li bëri woon lan la am moo xewoon. non cumukaay bi bë dañ la xabtaloo. cumukaay bi bëriwul woon coow. géew bi moo bëri woon coow. avant géew gi cumukaay bi ci boppam bëri woon na coow. waa cumukaay bi bëri woon coow bi yëpp mooy xëy na làmb ji moo demoon ba dépassé ñu bari te man làmb moom tollatuma foo xam ne daf may dépassé moo tax benn instant damaa replier ñëpp di def loo xam ne nii sax baaxul sama statut entraîneur ndax gis nga man mujj gi saacees ci mika maa ko toog maay sotti gàllaa ji maa doon takk maa doon takk ngemba maa ngi doon defee parce que bis bi moo tolloon foofu te dafa laajoon concentration te suñ nee école de lutte Balla Gaye suñ nee école de lutte Balla amul mag amul kenn ay xale rek ñoo fa nekk nañ staff bu dëgg ndax xam nga lu tax gis nga mag mag dëgg la baax na ci écurie mais xale mën na xam loo xam ne mag xam ko te ñun yàlla def na ni ñun duñ ay gan ci làmb quoi duñ ay gan ci làmb man amul benn nitu làmb boo xam ne muy magum làmb wala dara boo xam ne faale naa la ci expérience man ku ma jox sa bopp rek ba ma xam ne yow mi jox nga ma sa bopp lu mu laaj rek man ma def ko man amul kenn koo xam ne nii maa ngi copier ci moom ndax man samay pexe bopp rek dooy na ma. coow li si digg géew bi waa làmb xam nga moo baaxoo coow te wax dëgg yàlla xëy na erreur fu nekk lay jógee nit ak raqam ñëw na di def li mu war a def mais lépp rek entraîneur rëg-rëg bi moo ko indi ndax man maa ngi ci géew bi ñaata minute da ngeen ma faa gis ma wis góor rëg-rëg gàllaaj wala da ngeen maa gis ma dugg si détail yooy duma ci dugg ndax am na yenn yoo xam ne sama image daa am neen nu ma koy jaayee mais pas ay coow ak ay yooyu mooy li ma nekk ma gëm ko mooy di ci def liggéey bu rafet li làmb soxla mais pas may dem fee di tulliwaate ñëpp gis nañ ne rëg entraîneur en tant que entraîneur wax naa ko yow waroo taxaw dugg sax si détail yooyu rawatina Balla Gaye di romb yor nenam nga koy tulli. yow kooku su daje woon ak Balla Gaye ci mbedd da koo sañ wax sa tànk bi tax na suuf mais gis nga nañ bàyyi yooyu biir géew ba géew la àdduna ñoo lay seetaan te am na ñoo xam da nga koy def yaakaar ni ngóora la mais yaa ngi xeeblu sa bopp. ndax koo xam ne mën nga koo def loo xam mu tourne dóor la ba nga bëgg a dee mais def ko ba nga ko defee faalew la sax ndax day xam ne yow daa am lu tax nga def lii. te moom mu def affaire de grandeur faalew ko kon ne def li muy def si lañ toogaatee amaat beneen frère Reug Reug ñëw fekk Sa Thiès xëpp ko suuf si la ko Sa Thiès demee di dàq. mënoon na ko yàq parce que gis nga dem na ba Sa sag ak Reug Reug di bëma xante di def yow gis nga man maa dugg seen diggante ndax Reug Reug mu ngi yor bee jënam mais man maa dem ba jël risque yoo xam ne ni mais ah nooy def nooy def da ngay mujjee taxaw loo xam ne pour sauver bis tey ji suñ ma ci gaañoon man maay perte wala dara wala man maay faju ji wala dara mais yëpp rek maa ngi bëgg a bis wala dara ndax coow loolu su ma teewul woon Sa Thiès ndax dem nañ ba dugg doy waaj dugg làngu rek rek mhm. mais maa ngi ci gar sama bakkan avant policiers yi di ñëw si la ñëwee jàppale ma ñu pousse leen dugalaat tamit Sa bi ma ko dugal xëy na meroon na mais dugaat na mhm. te teewul bi mu paree ba coow li bare yëpp dama ñëw ba ci moom ne ko eh mu ne ne ko lii du làmb ji bi kii dama bëgg nga bëreeg moom ci xel ak dal li ma la waxoon mu ne ma noo problème ma ne ko déggul sa mère bi wàcce ko mère bi doo ko bërewaale te bi ma ko waxee dégg na la ma ko wax def na ko. dooree gauche droite dara daw soobu ci tànk yi instant boobu ran nga yëg. non aw ma ci tiitaay nga ndax tey jii li ma la waxoon rek Sa Thiès da di mbër moo xam ne nii ñu bëri ñu ngi gis ay défaut di wax défaut défaut défaut mais défaut xëy na nit ku nekk ak lu la sunu borom moo ñaale gaa dañ ciy liggéeyaat rek ndax Sa Thiès ñëpp xam nañu keroog xeex na xeex boo xam ne jaar na yoon dóor nay laaw dóor na arrêt gauche jàmm rëg rëg yoo xam ne kenn xameew ko ko. Reug Reug jël si na ko jël si boo xam ne lu baax la mais teewul Sa da doon contact di contact ak ñoo xam ne nii Reug ëpp leen doole dañ ko doon yegg fu gën a sori foofu mais duñ ko daan parce que Sa li ma la mën a xamal attaquant la nag ñëpp attaquant lañ ko xamee ni mënee song xaar la gën a mën sax ñaata mbër ñoo jàpp tànkam mu daan leen Sa Thiès ñi jàpp tànkam yëpp da leen daan ay tànkam moom moom tiitalu ma ko ci. Mhm. mu jaar tànkam kada appui bu ku waxul dëgg wax la ca ginnaaw dëgg Sa Thiès ñëpp xam ne ne yàqamti moo tax combat bi demee nii mais combat bi moom na demee neneen est-ce que loolu jotul ngeen liggéey ci yéen bu baax a baax. waaw mooy li ma la wax xam nga léeg-léeg gis na ni daan na waaj ak lu mënta xew ñëpp xam nañ ni daan na ko teewul xëy na looloo tax deuxième round bi mu ñëw bëree ko nu ko neex. ñu mel ne carte appui boobu Sa Thiès na ko bës mu tuuru ci suuf wala mu dóor ko mu kaa wala leneen ak leneen mais dafa jàqamti daw jubilé wala fa jàppoon ne moom mënul woon am loolu ci Reug non non Sa Thiès non non Sa Thiès bi mu paree jubiléwu def na daf ko def li muy def pare tourne jug dóor dóoraat na rëg-rëg foofu gis nga coup yi mu ko dóor suuf mais jug na jug na daw taxaw arbitre di yuuxu ko waxaat mu ñëwaat bëre su fekkoon tey ji loolu mu am ci rëg-rëg gëmewu ko te mën na gëmeew ko du fa nekk di bëre waat mais bi mu ñëwee mu ngi topp toppaat xeex bi boobu uniquement mu ngi dàq rëg-rëg muy daw ndax rëg-rëg da koo wax wax yoo xam ne Sa Thiès daf leen a bëggoon wan kii ñemewu ma ndax nee woon na ko yow li ma la bëgg a def laa lay def te bi arbitre sifflé li mu ko bëgg a def loolu la ko def da koo ñëw imposé ci lépp rek rek mosoo leen ko gis mu bëri arrière mais keroog arrière na maa ngi ko toogaat dégg mu naan Sa Thiès ragal la Sa su ñeme woon moom fan la jëm fan la jëm kon lamb ji day non damay ragal kon ñu ca su arbitre sifflé néew ma la saret bi mu takk mais taxi lay jël kon gaala bi bàyyi na ko géej waay Lamine après combat nag ñëpp xam nañ ne fi ngeen dugg instant bi comme ni nga ko waxee moo gën a danse ndax cercle VIP yi ngeen dugg ci entraînement wàllum préparation naka ngay waajale sa mbëri ci écurie bi yëpp. waaw mooy comme li may wax rek waajal weesul ñoom ñëpp nañ xëy di entraîner ndax man nii nga ma gisee li ma lay wax rek man dama yoon njaboot mënumaa jël sama temps yëpp di ko gañe ci mbëri mënul nekk tey jii man li may dundee man maa ko xam sutura ak sac amul loo xam ne da ngay toog fii di ko révéler wala di ko wax wala dara man li ma mën mooy teg leen si condition mooy soo xëyee demal def lii defal lii man benn temps rek laa muy ngoon gi muy ngoon gi laa mën a am temps ndax mënoo xëy war a nekk sa liggéey nekk fii naan da ngay topp di matinaalu wala di def yoo xam te yor kër. kon am na yu bari yoo xam yor njaboot am na yu bari yoo xam mënoo ko li ma mën mooy conseiller leen mooy dee leen ci nekk rek. nekk gi mooy deel xëy di dem géej wala ngay dem diin wala ngay dem musculation foofu lañ toll fi mu ne ni ñoom ñëpp entraînement maintien. balaa may tëj sama émission bi euh, Lamine ñu bari nee nañ da nga complexe ñaari mbër yi Sa ak. ak magam ji Balla Gaye loo wax rek dafa mel ni écurie ba ñoom ñaar fa nekk est-ce que loolu nga ci tontu. man ak complexe da koy laaj man jot yi ma am si mbëri ndaw yi sax xëy na aw ma ko ci ñaar ñooñu ndax ñaar ñooñu xëy na mën na ni yegg nañ ba pare. yegg nañ ba pare man école de lutte Balla mbër mu ndaw maag bu mag ba ñëpp laay ma la yéen ngi si stade ñoom ñëpp laay sonnal amul kenn ku ma ci xeebal bisam. parce que muy mbër mu mag maag mbër mu ndaw ma laa boole yemale kenn joxuma ci wala kenn jariñu ma ci loo xam ne ni day tax may naa tàmbale kenn man sport bii ma nekk ak liggéey bii ma nekk xëy na bëgg moo ma ci boole te bëgg moo ma ci téye su doon leneen ba tey heure bi mën naa xooli leneen xam nga li ñaan sunu borom mooy nattu nit yàlla man moo ma nattoo làmb nattoo ma école de lutte Balla Gaye te lii ma nekk nii muy kër si bi ma bëgg ko mais su fekkoon am na lu bari loo xam mooy li ma la wax rek junj doy na borom xel am na yu bëri yoo xam ne su fekkoon moo ma ci dugal kon heure bi wane naa ginnaaw bu yàgg. bi nekk après làmb yëpp coow li ñii di sànni trac noo ko gisee balaa ñuy tëj waa sànni taraak bi yëpp mooy ñun sunu kaa waxuñu wax ju rafet rek la ñuy wax xëy na ñee ñoo gëmul yàlla te tey ji sport mooy li ma wax rek rëg rëg lim fi daan ci làmb si mbër kenn musu koo daan ci mbër kenn mënu ko musu koo daan ci mbër daan na Fatick daan na Adrien Senghor daan na yoor daan na Kaolack daan jël na façon trophée bu ne façon drapeau façon xaalis bu ne daan na ko ci làmb am ko ci kon tey ji su ko Sa Thiès daanee mooy li ma doon wax rek moom moo def war a def affaire de grandeur nangu ni daan na ma daan na ma gis nga ay camp même suñ ko bëggee bousculer naan ko daanu ma daanu ma rëg-rëg moo la gën a xam ne daanu na ndax moom moo doon bëre xam na luy 4 appi xam na luy 3 appi xam na luy 2 appi moom moo waroon njëkk a nangu ni Sa daan na ma loolu su ko waxoon da koy am leneen feneen fu mu koy yóbbu dañuy xam ne kii sportif la mais yaa ngi gis internet bi TikTok bi ku nekk ñu ngi génn di ko classe di ko wax lu nekk mais loolu lépp tey ji mën naa ne benn instant moom moo ko yóbbee boppam sport sport la làmb mun a wax ba daan ñëpp par force dañ lay daan par force dañ lay daan mu ñaan yàlla nag daanu sotteel moo gën dem ba yegg foo xam ne ni daanu baaxu fa mu daanoo fa lii na nangu ni Sa da ko war a daan daan na ko te Sa Thiès mi ko daan mën na daan ku ne na xam ñaata champion la fi Sa Thiès daan moom bu mu yaakaar tey ji suñ bëriwaatoon suba suba suba na gëm ni Sa Thiès mën na koo daan. gars yi affaire leer na foog nga tëggaat ko mu leer. loolu lépp ñaari victoire la waaw loolu lépp fii ñaari victoire fan la amee. Ah, kon CNG li ñu wax du dëgg. ku nekk ku nekk dañuy tëggaat làmb ji mu leer pare ngeen. jubilé amu ci dara amu ci fii mu ne nii li ma la wax sa rëgg na dem xooli leneen Sa Thiès xooli leneen xëy na mën nañoo dajawaat leneen sa kaw ndax victoire bi CNG jox na ko drapeau jëli na ko lépp dina jot na ci waa Géejawaay ñu ngay feetu jouru combat ba sax gis nga Kër Sa Thiès ñëpp xam nañu gi ndam la am. àdduna xam na ko reporter yi xam na ko baal yooyu. ay fi Sénégal tool nga ciy wax balaa ñuy tëj. non fi Sénégal tool daal mooy Sénégal ñun suñu réew bi jàmm lañ fi ab bëgg jàmm lañ fi bëgg bëgguñu fi leneen ndax gis nga xeex ay la xew Israël la xew Palestine la xew yeneen dëkk yi ñaanuñu yàlla mu xew suñu dëkk bii. man de li may lancer jeunesse su Sénégal di ko lancer jeunesse su Géejawaay gii ñu toll mooy. nañ gëm ni liggéey mooy maye teraanga mais du paañu lay génn naan la kaay génn xeex fii kaay génn marche fii kaay def yooyu da ngay day tardé réew man de kenn du ma woo ci guerre naan ma kaay guerre la politiciens yi laay waxal sax politiciens yi laay waxal ndax fi ne ni ñoom ñoo toll si di woon nit ñi askan bi ay kaa leen génn ñu marche kaa leen gis nga booy bu fi génn di marche wala ngay dugg ci loo war a dugg ba jàpp la say mbokk ñooy sonn su la alkaati jàppee dóor la fiis booy zébi yi nga xam ne dóoree rek lañ bëgg mën ay xale yu ndaw lañ ni ñun kuñ fi jàpp ba gaañ la yow yaay perte ak say mbokk kuñ fi rey ana ñu fi reyoon ci manifestation yi fi amoon fàttewuñu leen ñan ñoo ko jooy seen mbokk man de dama part personnel géejawaay gii ma dëkk booy bu ma fi gis mu nar a génn naan day taal ay pono wala naan day xeex wala day dara man bañu ma ci dara dinaa wax ak yow lu ma mën a dégg te bañu ma cee rayante mooy sunu géejawaay gii lañu am li ñu fi Aline Sall jot a defar Ahmed Aïdara jot ko fee defal nañ ñu ko bàyyil nii muy ay ñoom Lat Diop boobu ba léegi ñu ngi jàppale jeunesse bi booy ñu ngi gis seen bopp bu baax bu fi benn booy génn naan day taal wala di jéem a yàq sunu géejawaay bii kuy yàq na nga dem yàq sa gox mais ku fi yàq wala dara bañ tëj la wala bañ jàpp la say mbokkoy sonn gars yi xamuñu la de man message boobu rek laa amoon lu may lancé mm. amatuma leen lu may lancé mm. sant ñëpp gërëm ñëpp su may sant nag mooy li ma wax rek ñu jàppale Sa Thiès ñëpp rawatina kenn ki nga xam ne nii moom benn un homme spécial koo xam ne école de lutte Balla Gaye lay jàppale moom xoolul Balla Gaye 2 xoolul Sa Thiès xoolul kenn ñëpp lay jàppale muy Pape Mama Fall douanier ñu ngi koy sant di ko gërëm muy mbër mu ndaw ak mbër mu mag ak yëpp lay yemale ku ci am komba dina yëkkati xaalis jox la mbëri ndaw yi rek ku ci am combat sax combat mbëri ndaw dina yëkkati soixante quinze mille lu mu tuut tuut mbër mu ndaw mu ci am combat mu jox la soixante quinze mille te man la koy jox ne ma jox ko ma jox leen ko maa ngi koy sant di ko gërëm te war ko na leen jàppale rek ndax booy yi ñoom ñëpp dem nañ ba papa lañ koy woowee papa maama ñu ngi lay sant di la gërëm li nga bëgg si duwaan yaa ko xam yàlla na la ko sunu borom defal ndax wax dëgg yàlla li nga am muy tuut muy bëri yaa ngi koy partagé ak booy maa ngi lay ñaanal yàlla na la yàlla gën a dëgëral lafal la cat musal la si làmmeñ musal la si lépp ba nga gën a mën a jàppale booy encore une fois tamit maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm Lat Diop président Lat Diop maa ngi koy gërëm bu baax a baax non Lat Diop xam nga lu tax man parce que day def may gis day jàppale mbër yi amul mbëru école de lutte Balla Gaye kum dul jàppale géejawaay amul kum ci jàppale mbër yi fi nekk yëpp muy bu écrit waalo baak école de lutte Balla Gaye ak Mor Fadam ak ñoom ñëpp écrit yu si nekk géejawaay ku ciy kii Lat Diop mu ngi def ak yow nda teraanga di jàppale jeunesse bi maa ngi koy sant bu baax a baax di gërëm bu baax a baax ba démb la mujjee yónnee bu ndigal mi war a bëre kaaw du gourné yónnee ko xaalis bu baree bari la def ndigal bi moo woo ne ma lat jox na ma lii dama ne ko booy gérer leen rek man lat joom fii laa waxe musuma koo gis musuma koo jot téléphone mënuma koo lijjanti kenn rek laay waxal si coordinateur am mooy Omar mbay Omar mbay maa ngi koy sant di gërëm ndax moom heure bu ma ko ne ko Omar waxal DG mu jàppale diw jàppale na ko mm-hmm. maa ngi koy gërëm bu baax a baax di ko sant bu baax a baax te naan ko yéeneem gi mu am ci géejawaay moom la yal na ko sunu boroom yeggaleel te xamal ni ko ñun moom géejawaay moo ñu ñor te képp kuy jàppale ginaaru géejawaay sax ñu ngi sa kanam ñu ngi sa ginnaaw lu mu bëgg soo ba ngoon rek dañ siy nekk maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm bu baax a baax loolu rek laa amoon lu may wax fii. ay teel ko kontaanee bu baax a baax seen làmb Ndeye Mbacke la woon ak kàddu di jaajëf ba beneen yoon. ñaareel bi si topp maa ngi gërëm Kanji production borom PDR. wax dëgg yàlla moom day jàppale jeunesse bi te maa ngi waxaat la ma doon wax rek ñun làmb lañu am te day jàppale làmb gis ngeen ko làmb yëpp day sponsorisé di def lépp entrepreneur bu mag la boo xam ne ni wax dëgg yàlla mu ngi jàppale askan bi ci li muy liggéey mu ngi ciy jàppale askan bi Kandji production maa lay gërëm bu baax a baax te naan mooy loolu na estate yi daw lépp am ku ci am batiment rek wala terrain boo bëgg tabax waaw gisal borom TDR day liggéey liggéey mucc ayib lay liggéey wax dëgg yàlla mooy loolu yaa ma gën a xam Kandji bëgg naa la sant nañ la gërëm nañ la yow jàppal rek yàlla baax na.